Bilal poids léger baa ngi noonu Bilal poids léger Brosse war na ko ndomb de mu ngi koy bay de Brosse war na ko ndomb waaye ceeb loolu la mun de doole doxul jëm foofu doole doxul jëm de laa ilaaha illallah fii ci Ndiaye Fatick lay xewee dëkku Ismaïla Ndiaye bi waaw Abdou siyaare waa Mbour dafa sibi Ismaïla Sarr borom Diofior siyaare naa la siyaare naa Issa Dubaab bi mbegaan yaa ngi si biir waaye siyaare naa Moustapha Samb ak Diassa Samb bu Doudou Sané waaw waaw ceeb dafa diis ndeysaan